plaisir de vous retrouver comme tous les matins bienvenue à l'avant-première de la mi-journée dellu di jégaluwaat bu baax a baax a baax di di di excuser wu aussi auprès des téléspectateurs waaye di jégalul ki nga xam ne moo di a doyen Maodo Sy Albert itam tey jii euh, lu nekk ci plateau bi beneen invité bi aussi euh, ñu ngi koy jéggal ci li nga xam ne itam moom moo fi waroon teew mu di Modou Fall enseignant chercheur Euh, xam naa du ñàq beneen yoon incha allah dina daal di teew mais en attendant nous sommes là euh, Adama Fall mu ngi nii toog sama wet beneen gan gaa ngi nii toog sama wet ñu fa yéene waxtaanee tey wàllum transport Adama Fall bonjour. tey dafa mel ni da ngay ñaxtu parce que da ngaa sol tout rouge parce que transport bi la fa xew neexu la. neexu moo tax nag nga sol tout rouge. waaw mais damay xam xam nga waaw da nga koy régler nag ba mu ne kocc. ni ko li may wax waaw. bon ñuy ziar doyen di ko nuyu di ko saa su ne. Mm-hmm. comme ni ñu koy defee saa su ne yàlla bàyyi ko xelam may ko gudd fan ak wér ak wérle. Mm-hmm. di nuyu suñu xarit borom ndàngaan sàmm ne ko mu dalloo jàmm ak salaam di nuyu téléspectateur yëpp di ñuy seetaan fépp di wax ni bopp bi rafetite dafa dëgg la ah. waaw comme damay kii rek peñewu ma sax. ma ngay fël-fëlaale. waaw peñewu ma sax. Hmm. Adama Fall mi ngi noonu ca wàllu wa suñu gan ki ñu nar a àndal Modou Niang ñu koy wax ñaari ci tali bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax. waaw maa ngi lay fay système di nuyu suma nijaay Fall. Mhm. nii la mën a dem yow Fall rek nga mën a sant. Fall mën a sant sant bi neexul waaw non du mën a neexul xam nga Fall dañ leen xool Cheikh Ibrahima moo tax. ah a wax dara. <laughs> moo leen sobe. <laughs> waaw di nuyu téléspectateurs yi euh, di nuyu waa kër gi wax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee dalal nañ ñu. Mhm. jox ñu suñu waaye wax dëgg yàlla. Mhm. di ci kontaan bu baax wax surtout visite bi ci suuf. macha allah euh, mi ngi matali liggéeyam. vraiment. jërëjëf ñaanu ci tali bi noonu la ñu koy boobee Adama Fall tey moom dañoo tàll lool dañuy romb euh, la une des journaux daal di wéy parce que li ci tali bi ñëpp gis nañ ko li ci tali bi moom ñaa ñëpp gis nañ ko métti na compliqué na doy na waar lépp lañu mën a wax waaye itam nit ñaa ngi gis te boo nekkee ci métier damay faral di wax ne euh, du yow kese yaa nekk ci métier bi ndax boo defee benn mbir dañ naan moo taximaan yëpp mm-hmm. chauffeur yëpp mm-hmm. journaliste yëpp animateur yëpp. Mm-hmm. moo tax boo nekkee ci métier dangay ngay fexe sellal ko. c'est te bëri na ci loo xam ne ci tali bi boo ko rombee sa yaram day daw <laughs> xaw ma ñàkk teggin lañ koy wax xaw ma réew lañ koy wax kenn xamul. mbir mi nan lay ñuróol xamati ñu ngi jeexal nit ñi. Mm-hmm. semaine dernière gis ngeen li fi xew. ci mm-hmm. accident bu métti boobu am ci wàllu ci yoonu Koungheul bi. démb encore. 14 heures accident. ba ñu laajtee témoins yi nee nañ waa ji da doon xëccoo da doon jëkkante te ka ko wax mu ngi woon ci biir oto ba hmm. nee da doon xëccoo ba renversé wu bakkan dafa fort même bu dee benn nit la sax am na ko ci ñàkk bakkanam am des blessés graves hmm. te lépp lépp buñ ko xoolee parfois défaillance ci oto yi sa veut hmm. dire liggéey tamit nañ xool ñu leen di jox oto yi euh, oto yi autorisation yi duñ koy waxee bu ñu leen demee service des noonu lañ koy waxee uh-huh. fi ñu contrôler oto yi visite technique tout le monde passe. yu baax yeeg yu baaxul ak contrôle bi accident bi passé. défaillance pneu la woon. bu démb bi oto bi nee nañ ci tataayu njëkk ya la dafa màgget. muy benn nga boole ci chauffeur ba di def ko ko neex. muy ñaar ils sont téléphone. ñu ngi waxtaan ñu ngi saaga ñu ngi def lu leen neex. c'est du n'importe quoi c'est du n'importe nit ñaa ngi jeex léegi nag kan moo ci war a jël matuwaay bu ñu waxee dañu naa état bi dañuy jël matuwaay man damay wax tout le temps que ma nekkee ci oto kay def naka sudul noonu dinaa ne taxawal. mais nit ñi dañuy seetaan parfois aussi man du ma nekk ci biir oto. yow nga war nga war nga war maa sàmm. Hmm. damaa fay suma xaalis. Hmm. nga war maa sàmm hmm. parfois boo kaasee sax beneen client bi moo la naan mais du tollee noonu nga ci jël taxi. c'est un transport en boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. da ngay respecté nit ñi ne ci biir oto bi. yow chauffeur bi d'abord. ñi ne ci biir oto bi xam ne seen bakkan daa nekk ci xott. booy def yenn yi. man semaine dernière a juste 15 jours. dugg naa taxi jiitle ak ñaari tata yoo xam ne hmm. wallaahi amul fu ñu romb te gisoo nit ñi naan ne ñii lu ñuy def nii mais ba tey kenn téyewu leen de kenn hmm. taxaw loogu leen hmm. ba tey ñi ci biir oto bi bu ñu wàccee oto bi yaa ngi di gis ñuy kaas damaa toppanteeg ñoom ba ci VDN 3 bi te su ma leen jiitu woon dama leen di boole policiers yi ne ci kanam mais ñun dañu amuñu amuñu politique dénonciation da ngay ne ci biir oto bi ñoom ñu njëkkante def lu leen neex ngay seetaan ba ñu ne teel mbëkk ñu ne ah pourtant dañu doon xëccoo de. bi ñuy xëccoo oto yi oto bi. Hmm. nit ñaa ngi ci biir oto bi te kenn waxu ñun Sénégal aussi am na yenn affaire yi ku nekk na jël responsabilité hmm. Hmm. ku nekk na jël responsabilité am ma dugg ci sa oto di la fay même bu dee 100 francs lay fay. ngay def du n'importe quoi ma bàyyi di seetaan. ça c'est un cri aussi ñun tamit nañu jël suñu responsabilité quoi. moo tax Maria on doit pas faire un changement systémique on doit faire un changement épistémologique. mooy maanaam. nit ñi la ñu war a soppi mais du système parce que nit ñi ñooy gérer système ñooy defar système ñooy defar système nit ñi ñoo nekk du ay mala ñoo nekk ci circulation bi di daw hmm. ay nit ñoo nekk ci circulation bi yoro oto yi nekk ci biir oto yi di ci nekk ay usagers ñiy nekk ay transporteurs su nit ñi soppeekuwul xoolaat beneen xalaat amaat beneen comportement bu ñu am li xew Sénégal rek moo fi xew hmm. walla budda parce que nag Sénégal dafa dafa dafa gaaw ci fatalité yàllaa ko dogal. dañ cee amul benn loo xamante ni responsabilité nit la. Hmm. la xew ci accident yëpp finalité bi soo déggee da ngay gis ni responsabilité nit la. du lenn loo xamante ni yàlla lu mu dogal la. billa doomu aadama rek. doomu aadama moo def taxawaay taxawaay boo xamante ni li ko ko dal dal dal na ko donc doomu aadama la ñu war a defar mooy épistémologique. pas hmm. système. parce que doomu aadama su baaxee rek système ba baax. donc système transport bii. ña ca nekk da ko dawal la ñu war a soppi wala ñoom ñu soppi taxawaay. donc defali usagers yi bëri nañ responsabilité ci biir transport bi. parce que ñoom ñooy dugg ci oto bu fees. ñooy fekk oto bi fees ñu burux lu dugg ci. parce que oto démb ba da doon course mais dafa duy ba fees. ba nit ñi taxaw. mu daw ba pare jeex jeex gisul frein di jàdd dëpp oto ba mooy responsabilité état nga ca parce que oto boobu naka la def ba am visite technique. technique naka la oto boobu def ba am visite technique ba war a mën a daw ci circulation. les responsabilités sont partagées. parce que nag suñu nee état état ñun la. parce que donc les responsabilités ñun ñëpp ñoo ko bokk. gis nga. il faut ko nay vers des sanctions parce que nag 20 morts ci diggante bu gàtt. Mhm. ak ay blessés yu bari ci diggante bu gàtt malgré mesures yi ñu jëloon démb ak barki démb. Mhm. loolu c'est c'est anormal. Mhm. parce que transport warul nekk morgue boo xamante ni population yi lañ cay yóbbu. te loolu su amee il faut qu'on nay vers les états généraux du transport loolu laa jàpp. ñu tëggaat ko. xool naka la ñuy délivrer les permis ça aussi c'est important xool naka la ñuy délivrer les visites techniques ba pare oto yi âgé ah, na njangeen bi xam naa ni ndekki nga balaa ngaa ñëw am na oto yoo xamante ni Maria waratuñu daw Sénégal. waratuñu daw de. car rapide Renault lëg fan lañ koy defaree te ci àdduna. amatul fu ñu koy defaree ci àdduna mais dañ koy defar fii senegal wala. Mm. ay barigo lañ koy defaree fii Sénégal soo demee nu mu tëdd fële fële booru tribunal fa lañ koy defaree. garage la garage la fa la ñuy defaree car amul benn norme bu ñu respecté tata yi am nañ ñoo xamante ni dépassé nañ seen durée de vie te ñu ngi daw ba léegi. Mm. waratuñu daw ci circulation yi muy tata muy taxi muy leneen ak leneen ak leneen loolu responsabilité état la. donc il faut qu'on mette en place des mécanismes yoo xamante ni dañuy protéger les populations les usagers la ñuy protéger mais usager bi moo war a am ful la moom it mooy su taxawee ci arrêt bi bu mu dugg ci n'importe quel taxawee ci arrêt bi bu mu dugg ci yow dangay ngay dugg taxi sax mu wóor la ni taxi bii warul am visite technique mm-hmm. secteur transport lañ ca war a wax dafa bari mais puisque moom il est mm-hmm. te moom nee na li ci tali bi xam nga Maria yaa ngi gis vidéo boobu ci autoroute bi gars yi taxaw ñetti xale yi taxaw ci gannaaw Njaga Njaay bi di fo ci diggu autoroute bi. Mhm. di dóorante ay maajeer yaa ngi koy gis ci biir autoroute bi. mi ngi circuler mhm. ñaari Njaga Njaay tolo dóoraat ko kii di dóor kur fañ fii kii di dóor kuñ fañ bii ci biir tali bi la amee. <laughs> ñaari bus kii ubbi bunt kii ubbi bunt ñuy dóorante kurpañ ci biir autoroute bi la amee et personne n'en parle borom camion ba sax mujjee woon nañu ko jàpp ki doon ki doon añ di dawal camion bi di añ. ci circulation jàppuñu ko ba tey loolu bu yàgg la. xam naa bi ngay wax yow ki tegoon boolu maafe. tegoon boolu maafe ba di ko añ ci kaw oto bi. gis nga vidéo su particulier bi automatique am la yor. pied gauche am ma ngi ci biti mu ngi jël pied gauche bi tàllal ko ba mu jub teg ko ci biti. di dawal ci oto bi xoolal nii. loolu envoyé ma ko. gis nga gis nga gis nga booy gis nga. yu gën a garaaw yi am na. Hmm. maintenant yéen am ngeen ci responsabilité. Hmm. parce que chauffeur nga. yéenee tàggat xale yi lii xew yéen na ko nangu en tant que chauffeur bi nekk ci biir bus bi. lii xew yéen a ko nangu en tant que chauffeur bi nekk ci njaganjaay bi. dëgg hmm. la kon yéen seen responsabilité taxaw na en tant que chauffeur. c'est loolu mooy dëgg. jërëjëf maintenant nag. lan comportement lañ ci war a mun a am Maria. ban taxawaay lañ ci war a mun a am. Mhm. parce que affaire bi du dénoncer rek. lan moo ci lan moo ci kii état. lan moo ciy responsabilité état parce que état nag du populisme. Mhm. du caageen Dakar dem dig dañoo grève nga jaagar jaagari dem taxaw pour télé yi wër la nga dékk micro ba pare dem du caageen accident dafa am nga ñëw taxaw jox jox ñu wax ba pare nga dem sa yoon. ñoo am na tey ak ministre bi de on attend de voir. moo tax il faut prendre des mesures. ok mesures yi ci njëkk dañ sanctionné négativement mooy ñii nga xam ne ñooy def ñaawtee fii waratuñu yor oto wala war nañ leen mën a sanctionné benn délai mooy il faut que ñu dem ba xoolaat tëggaat taxi yi nga xam ne moo régir transport mais nag puisque yéen chauffeurs yi lu leen neex ngeen def taximaan yi sax da ngeen nekk ci tali bi di def lu leen neex vous faites ce que vous voulez parce que dañoo am droit de stationnement. parce am droit de stationnement. leen neex la sa c'est-à-dire day. am na ku ma ko mas a wax de. mais wax ak moom mu ne ma ñun dañu am droit de stationnement. mooy mooy fu la neex ngay taxaw. comprendre. ok. mënul comprendre parce que chauffeur yi jànguñu. c'est que ñun suñu problème Sénégal mooy ku nekk da nga nekk sa secteur di jàmbat. yow yaa ngay jàmbat man nii fi ma toog damay toog di jàmbat. naan lii lii yëg lii dafa mel ni dafa mel mais est-ce que man li ma wax def naa ko. ok droit waru ko rek wareef. Mhm. dëgg naa la baax. <laughs> ok. tiitër gu bari gi nag moo fi jafe waxal rek. ña ngeen laag faa leen daal ñoo jàkkaarloo. yoo xam moo tax sama nuñ bëree tiitër. non c'est que bon euh, ñun ñooy tiitër. Hmm. Ah, euh, ñun ñoo <laughs> yab ku ne di yab lu ne. Hmm. ki ñëw ñun rek la fi fekk te ku wàcc sa morom yéeg. Euh, damay kontaan nag franchement ci sa xalaat ak sa wax. pertinence bi xam-xam bi nga waxee di nangu benn côté benn côté bi euh, damay bañ. Euh, da nga fiy laal ay point yu sensible yu am solo parce que nag pël ku ko woo ci guuxum soow nag wàcc nga parce que dañu wax ñaari ci tali bi lañu wax. Euh, Nialit Tall bi raconte des faits yoo xam ne nii certes il a subi yenn yi je l'ai vu de mes propres dama koy dund créé ci concept di ci waxtaan ba pare bind ci ay scénario euh, damay faral di wax ni su ma tudd nga fi agent police agent de sécurité di lee nuyu de passage di xam yaa y a des brebis ça existe dans tous les corps dañuy ñaawlu doxalin taximan bi bu nekkee ne tegu ko ci yoon dañ koy ñaawlu quoi qu'on dise du rafet mais bu rafetee dañ koy wax parce que ñëpp bokkuñu yem damay wax responsabilité partagée ba pare di jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci accident yooyu ñi ci gaañu nag di leen ñaanal ñu delluwaat ci seen activité yàlla defal leen wér parce que kiy jógee këram yor oto di liggéey ñaanul yàlla def accident mais accident nag danañ ko def ci volonté maanaam nit ki ni muy doxalee mun na causer accident xam nga dama seetaan vidéo bi ma dégg chauffeur bi wax bi am ci autoroute bi euh, yaakaar naa ci pont yaraax bi la côté yoon ma dégg chauffeur bi mu ne waa ji ko doon pointé le doigt naan ko yow mii la da nga doon njëkkante di ko indexé ma dégg chauffeur bi mu ne bi nga ko tàllalee micro bi mu ne yow gëmoo yàlla accident yàllaa koy dogal pour dellu si ci li nga wax lu ñëw ñu ne yàlla yàlla moom amul ay mbokk <laughs> euh, nee naa la responsabilité partage yi nga chauffeur yi des fois ñi jox oto yi am na ci ñoo xam ne ñii. bi ñuy ñëw ci oto ba ñëwewuñ fa permis dañ fa ñëwoon comme receveur parce que ñun ñu nekk euh, ci ay secteur bi foog ñu leeral des fois type de conducteur yu am ak fan lañ jógee ak nan lañ def bañ jox leen oto parce que conséquence boo gis am na cause receveur la ñëwee parce que man j'étais animateur rajo Afia dama doon invité sëfaru Tata di invité chef euh, chef de regroupement di leen interpeller ci lii xew parce que dafa lii da xew dafa yàgg de lii xew dafa yàgg dañ koo bay bayloo ba mu indi lii te buñ ci taxawu day gën a yokk te man taxaw man am naa yaqin que ne tollooguñu walla taxaw guñ foo xam ne nii lii war naa jeex. comment ça. ok comme euh, pour loolu euh, c'est les hommes qu'il faut à la place qu'il kan moo war a dawal oto kan moo war a nekk chauffeur de transport en commun Sénégal ku jóg uti permis nekk chauffeur taxi mooy les brebis galeuses yi may wax léegi léegi léegi est-ce que am nañ formation est-ce que ils sont préparés pour être un de taxi parce que chauffeur de taxi c'était warut a nekk n'importe qui parce que rapport direct bu muy am avec la clientèle parce que kiy choisir taxi dafa am ay critères yi tax mu choisir ko confort ak sécurité nan laay waxtaan ak taximaan client yàgg naa dàq taximaan fay ko lu prix bu misérable pour dàq ko am lu tax est-ce que nam waxee moom gisu ci waxam arrogance. dëgg la est-ce que waxut ak moom tàng xol ak waxtaan et cetera et cetera. sama taxi warul mel noonu dafa war a nekk koo xam ne nii ku yaatu koo xam ne ni ku ñëw mu war a mën a ànd ak yow donte nit ñëpp bokkuñ yem nag ndax li ngay li may critiquer ci taximan bi des fois moom laay critiquer ci usager bi client bi moom laay critiquer ci beneen journaliste bi ak keneen ak keneen parce que ñëpp bokkuñu mais bu ñu wax wax na ko léegi Samaria wax na ko léegi bu ñu pointé du doigt dañu mettre tout le monde dans un même sac parce que dañuy wax chauffeur yi la wax taximan yi. problème yi am Sénégal chauffeur yee ko fi andi. waaw transport bi waaw chauffeur la ñuy wax dama la koy xam ne dañuy wax chauffeur parce que c'est le conducteur. mais nee la accident boo gis am na cause. maanaam mun na doon défaillance mécanique wax nga ko si biir wax munoon doon défaillance mécanique. mun na doon tamit. défaillance mécanique. waaw nga dem ñu jox la ñu ñu ñu ñu visite technique nga jàll. non déedéet oto mun naa départ di baax di balaa moo àgg bon. chauffeur bi nag normalement bu ñu ko formé. waaw bu oto bi déparé bu amee lenn lu ci lu ci lu ci. waaw rek. Ah. war na ko sentir. est-ce que moment ba mu koy sentir allure ba muy daw ak. allure boobu ba muy am. dañ njëkk a lijjanti allure bi. dafa am quand je suis dans l' agglomération dafa am vitesse bu ma war a dawee. waaw bu ma nekk hors agglomération dafa am vitesse bu ma war a dawee loolu chauffeur bi dawal moo xam loolu kooku ça n'a rien à voir ak li war a am accident boo xam ne ni yàlla su borom daf koo. bàyyi loolu bàyyi yàlla suñu borom mënuñu koo bañ a leen loolu. loolu dafa yomb tam waa non d' accord non dafay yomb ci argumenté selon ci côté boo xam ne ki kay wax. ni mu koy waxee moom la concerné maanaam ni mu koy waxee loolu moom la arrangé parce que bu may wax man damay wax loo xam ne nii damay wax dans le cadre général waxuma lu ma neex su ma waxee lu ma neex mën ngaa dégg ne kon yàlla amu fa waruñ ko fa tudd mais li may wax damay wax lu lu lu dëggu lu tegu lu jaar yoon laay wax moo tax mënuma bañ a tudd yàlla parce que yàlla dëgg la bëgg lu jaar yoon la dugg la bëgg te buñ koy tudd dañ koy tudd ci lu jaar yoon ci côté boobu laay tuddee yàlla. ndogal boo gis fekk fa tànk boroom dëgg la mais nag nit moo koy sabab ci kaw dogalu yàlla man damay dàq li chauffeur boobu wax de dama ko dàq man dama dàq ko parce que client bi échanger bi dafa wax moom mu tontu ko tudd yàlla damaa dàq loolu man côté boobu boo ko waxee damay d'accord ne foofu moom bu ñu wax yàlla parce que tamit li tax accident bi am loolu la waa ji nettali ne da daw bu baax mais am na ci loo xam ne nii dafay ñëw brusquement bu ñëwee mënatoo téye oto bi wax nga ko léegi poids bi oto bi di yàpp c'est pas normal tata yi day yàpp ba weng bi bu nekkee ne chauffeur amul maîtrise volant parce que mën dawal dafay ànd ak bu affaire amee ci saa si nga am maîtrise maîtrise boobu lan moo la koy jox parce que da nga mbapat dawal mbapat parce que nekkul na nag oto yëpp ñoo chauffeur yëpp ñooy toj pono di daana oto de nekkul chauffeur yëpp ñooy toj pneu di daane oto dëgg la loolu dafay bokk ci benn ak réflexe boo xam ne dafa automatique il fois que euh, pneu bi la teel dafay dépendre aussi ci poids bi nga yeb allure bi nga doon daw ak réflexion bu automatique bi nga am ba tey ça revient au conducteur rek ba tey d'accord naa maanaam dama lay expliquer rek accident des fois dafay am chauffeur bi jaayante jaayante lool ba jël oto bi am fu mu ko dóor mais mooy gën jël oto bi am foo ko dóor moo gën oto bi yàpp ba fees nga këpp oto bi des fois moo koy gën mais loolu lépp ci chauffeur bi dawal fa muy toll ba di ko def moom moo ko xam loolu yëfu chauffeur bi dawal la parce que y a mais mais ñaa waaw. Euh, dafa am limitation des vitesses. d'accord na wax naa ko sànq xam nga limitation des vitesses. waaw suñu respecté li ñuy wax limitation des vitesses. pneu warul toj. ba indi yenn jéey ba indi yenn jéey yi d'accord su ñu waxee limitation des vitesses mënoo dugg ci agglomération amoo frein ba mu indi yenn jéey yi. d'accord naa mm. mais frein. mën ngay daw en cours de route nga ñàkk ko ci saa si d'accord naa parce que oto affaire u seytaane la. merci mais uh-huh. su ñu waxee limitation des vitesses. lu tax ñu ne la autoroute à péage waroo dépasser cent di kilomètres heure c'est parce que euh, dafa am lu tax. dëgg la oto. su tollee ci cent dix cent vingt kilomètres heure soo déggee bëm oto bi mm. quarante tonnes lay pesé. dëgg la day gën a diis gën a am doole day gën a gën am doole. dëgg la <clears throat> moo tax njaaxum di am ñaawteef di am. maintenant. Mm-hmm. ñun yéen chauffeur bi ba ngeen di jàng permis dañ leen wax limitation de vitesses ngeen di jàll ngeen di jël tableau yi di ko xool ci circulation bi. Mm-hmm. mais doo leen ko respecté. waaw bu dee ñenn ñi jàng nañ ko. j'ai doo leen ko respecté kon nag problème bi am na feneen su nekkee ñeneen ñi jànguñu ko c'est parce que délibération fa ñuy jëlee permis yi y problème boobu fépp la ne déglu rek kese kay déglu rek yaa cest à secteur la boo xamante ni hmm. dafa bëri problème dëgg la secteur bi bëri problème bi trop problème bi mooy dañ fay duuf baaraam mais yéen yi chauffeur hmm. am ngeen ci responsable dëgg la bu baax parce que nit hmm. lu mu jàng jàng jàng dawal lu mu mën mën mën dawal day dafa war a jàpp ni mi ngi doog a dawal loolu mooy prudence. dëgg la prudence sur route. bul jàpp ni mën naa dawal. Mhm. ñi mën fay rek ñooy lab ca géej ga. dëgg la mhm. mënul fay du ñu lab parce que ña nga ca eh, ña nga ca dañuy ragal dañuy ragal. Mhm. chauffeur bu la gën a prudent du def njëyee ci circulation. parce que du dëgg du yoon. ci biir circulation wala ci biir agglomération ngay daw 100 kilomètres heure. ba pare ba pare ba pare Adama Fall. am na leneen lu ci ne gis nga déli délivration permis yooyu ñuy wax. ku ñëw ñu jox la permis mais aussi war nañ xoolaat bu baax a baax ñi ñuy jox oto yi da ngay gis xale bu ndaw bu am vingt ans wala vingt cinq ans ñu jox la camion ngay dawal camion accident camion yu bëri yu fii am ay xale yu ndaw ñoo koy dawal ñoo xam ne amuñu jabar amuñu doom ñu benn responsabilité amuñu benn projet ñoom daal dañ leen di jox ñu ne ci tali bi di def lu leen neex ñiy dawal camion mbalit ay xale yu tuuti lañu am en fait même ñi même di recruter xooluñu sax ba xam ndax kii ngay jox sa oto yow il est responsabilité mooy booy génn sa kër nga xam ne yow da ngaa bàyyi njaboot sa kër nga xam ne da nga nit yoo xam ne dañoo dañoo yaakaar ci yow ci sa kër nga xam ne dafa am nit yoo xam ne tey jii yow boo xëyee tànk dellu si woo seen xel du daal loolu boo ko amul yow doo calculer ñi nga yegg ci oto bi ba xam ndax ñoo ñu aussi mm. c'est des responsables ay nit yoo xam ne dañoo jël seen maanaam yow booy dawal sax mun nañ ne mun nañ ko imaginer def ko entre guillemets day mel ni yow yàlla nga ci ñoom parce que seen dund mu ngi dépendre ci jamono ji ngay bi nga leen di transporter ok mais dañuy dañuy délivrer ku jóg daal auto école yi auto école yi war nañu responsabilité état auto école yi war nañ ko xoolaat li may wax toujours naan école yi war nañ ko xoolaat ci boppam mm. mais auto école yi war nañ ko xoolaat mm. nit ñi nit ñi di amee permis war nañ ko xoolaat mm. nit ñi di gaawe gis nga am na chauffeur yoo xam ne dañoo mbappat mooy li nga wax léegi avant ngay nekk chauffeur di di am permis ma am na sama xarit boo xam ne dafa ma moom da doon dajale li mu am ci apprenti la doon dajale am permis gis nga macha allah macha allah tey la gën a mën a dawal ba tey jii buy dawal da ngay sentir ci prudence bu muy àndal. ak respect bu muy àndal ci nit ñi. xam nga dama mës a croiser ak benn vieux mën na ma jur ci circulation bi mu def dawal bu doy waar euh, ma am ma wax ak moom mu ne ma ba ma amee permis juddoo goo ma ne ko maare day taal yi dégguma parce que balaa nga am becc sàmm xam gémmiñam lu muy wëlis mu ne ma nga ne lan ma ne ko maari day taali ba ma ba nga amee permi man juddooguma ba tey ma juddu am at yu ma am ngay def lii boo fi yàggee mu gën a ñaaw est-ce que xam nga li ma yow comme que lii ngay def ba mu juddoogul nga am permis ba tey yaa ngi def lii te xam naa danga yaa ngi def leneen boo fi ya gën yàgg mu gën a ñaaw pour walla rek nit ki bu ñuy wax mbappat ci métier. dafa am tarbiwu booy jàngatuñu métier xaalis la ñu wut. da nga gis apprendre car rapide ñi ma yi ma yi ma gis nii dañ leen di fay pour ñu toog lang gis nga liñ nekkee ñàkk yar gi ak réewande gi parce que ñoo yor xaalis bi liñ bëgg la chauffeur bi di def gi nga secteur transport point boo ci ak foo dugg mën nga faa fanaan. c'est parce que di dellusiwaat ci li nga doon wax problème mu nit la du question que ni kii mooy dawal lii ñu bëgg koo catégoriser ci secteur bi tudd leen joxañ leen baaraam mais nit ka fa nekk la maanaam kay tax liggéey ba euh, parce que su ma ne euh, euh, diw Modou taximan def na ma benn affaire su may sooy nettali da nga naan taximan bi ma def keroog. xam nga taximan bi taximan yi bi agressé rek. agressé te xoolal ku ne am na si suñu biir ñun ku ne am na si suñu biir te xam nga lu ko indi mooy métier mu pëccëxoo métier boo xam ne nii maanaam euh, ñi nga xam ne mooy état bi foofu la ñuy tuddee état dimbaliwuñu ba ma ba mun ñu jàppale. fenn ku si nekk état état dimbali na leen tax. Ah. état dafa yëkkati ce qu'on appelle les per ba mu ba ñuy wax tolérance zéro fii Sénégal. Mhm. di wax dañuy wax dañuy andi ce qu'on appelle les permis point. waaw yéen a njëkk jóg. Ah. yuuxu ko dañoo dégg fi mu waxee. waaw wala déet. waaw yéen. tey su ñu waxoon permis à point ñu bëri dootuñu. dawalati ak man. waaw ñu bëri dootuñu dawalati état kay la ma waroon def pour may pour yéen ngeen mën a toog. Hmm. dawal normalement. parce que yéen amu leen lu dul dawal bi pour mën a joxe dépense seen biir kër. d'accord su nekkee ku def ñaaw téef dañ lay wàññil say point ba nga perdre sa point. Mm-hmm. su boobaa. Uh-huh. lu bari dana wàññeeku. ku ku ku dawal normalement ñu lay récompenser. ñu lay récompenser. su boobaa lu bari dana wàññeeku mais bañ ko fi yëkkatee. ba ko fi mhm. état yëkkatee. waaw yéen transporteurs yi. yéen chauffeurs yi yéen a jóg. lobby yi jóg yaa ngi comprendre dégg naa la wax ji bari. waaw syndicat transporteurs yi jóg. syndicat chauffeurs yi ñoom Assane Ndoye jóg. Mhm. ku nekk poñe fi gars yi wax bëri ñu wër tuubaa dem seeti xalif yi <laughs> dem seeti sëriñ si. Ah, def nañ fi loolu lépp. mais attends est-ce que loolu yëpp su amee. Ah. bëgg ngeen secteur bi baax. waaw ah, d'accord si tey lañ gën a bëgg mu baax. soo leen taxawee noonu secteur bi du baax. Ah, xam nga lu fi ne. waaw jël nañ fi mesure ba accident si si si si. si kilo bi si kilo bi amee. waaw jëluñu fi mesure. ba jël fi mesure yoo xamante ni dañuy dindi nangam sangam. waaw porte bagage yooyu. daw leen daw à parti de minuit. chauffeur yëpp jóg yuuxu. teg ko fan mais accident mujj bi rek ñu koy nee nañ woy parce que dañ leen di tere ñuy daw guddi. dañ di tere ñuy daw guddi tere nga daw guddi nga daw fajar. yow sa sécurité lañ lay tegal nga woo de. mais <laughs> la du ñu wax li ñu war a wax. dañu war a wax li ñu wax de damaa bëgg. nga plateau dama dama dama toog ak ak ak Yves des TV. Mhm, sama frère. mu woo ma woo na ma lëndi woo ma mardi maanaam mu ñu bu may wax daal. en grosso modo def nañ six heures de temps d'émission ci loolu ci accident si kilo boobu. ci point yooyu. ñu toog étaler ko xoolal ak euh, Ngone Saliou mu toog étaler point par point ma wax ci sama xalaat gina gars yi bu ñuy bañ dara dafa am fuñ ko teg. waaw ah wallaay Azim bañuñ comme di bañ nii rek mel ne amuñu xel ñun parce que ñoom permis à point damay na permis à point pour képp. conducteur yëpp la concerné du sama transport kese oui oui mais ñun suñu pàcc transport bi ñuy def am nañ ci niñ ko gisee ne que bañuñ ko musuñ koo bañ nag mais benn dañ njëkk a teg man la ma tontu dama ne pareeguñ benn pareeguñu li ma lay yëg kan mooy état état mooy kan merci ci biir wax dégg naa nga ne dañoo am problème bi lëm bii waaw ok kon ñun ñëpp ñoo am problème bii kon secteur yëpp ñoo am problème bii ki war a defar est-ce que ñun waruñ sax àgg ci kii war a dóore moom la ñu war a njëkk duma dama naan kii yor yar di wër ku mu dóor bu ko tegoon ci boppam mu damm du am lu mu dóore parce que lam ñuy tere ma ngay def le parce que. c'est maa ngi ñëw. de du raison nag wax na dëgg. kay ah, maa ngi ñëw. c'est pas une raison. <laughs> raison. waaw ah, d'accord ngi yor yar. waaw war a dóore yar bi bu ko doon dóor ci boppam damm na ba pare du am lu mu dóore xam nga li tax ma wax loolu. Hmm. kan moo war a sanctionné. état waaw kay est-ce que atta wàccoon wàccoog naag ki mu war a sanctionné mooy ñim est-ce que atta li ñu waroon ñun def nañ ko. def na ko kay déedéet. defalul la ay tali yu baax. ah rek mooy Sénégal. noo déglul baax li ma wax dama ne. defal na la ay tali yu baax. neen am na lu mu defar ci tali yu baax. noo dama ne état laa wax de. waaw ba tey defal na la ay tali yu baax. man maay taxi de. yoo xamante ni dañoo respecté les normes. parce que état loolu la lay waxal. la ilaha illallah. est xoolal xam nga xam nga état mënuma cee génn moo tax ma ne la kan kan moo war a dóore ki war a dóore kan la est-ce que man war naa war a mën a dóore man mi nga xam ne nii man maa jàngal booy bii dawal ba pare may dégg ñu naan mënul dawal dafa réew dafa lii est-ce que moom man mi ko jàngal man lim def moom nekkul ci man est-ce may dégg est-ce que booy bi lim def bañ koy pointer le doigt daa réew mënul dawal. jàngul code de la route est-ce que ki ka jàngal dawal bu dee am na ki ka jàngal dawal. Hmm. bu dee am na ki ka jàngal dawal bu dee mbapat na métier mi. Hmm. est que kooku tane na ko. parce que nit dana jàngal nit mu dàq gën laa aay yow mi ko jàngal gën laa aay. Hmm. est-ce que comprendre nga ba waaw état Sénégal boobu xam nga des fois dama naa ni léeg nga dugg ci sens interdit léeg-léeg nga dugg ci sens interdit. man ma xam ne sens interdit la yow ma dugg fa doo xam ne sens interdit la ma dajal yow ne la yow seen bi fii. mënul mënul nekk waaw waroo mën a dugg ci sens interdit. te doo xam ndax fii du sens interdit est-ce que yow yëpp am tableau. mais fépp ay am par su demee rek am na ñeneen ñu ko dindi. merci beaucoup est-ce que voilà est-ce que prétexte la est-ce que prétexte la est-ce que du gang moo fa ñëw nekk bees tàq kooku lu ñu koy jàppee boo ko waxee ne sens interdit la mu ne la awma tableau gisuma ko day nekk ci dëgg. mënuloo ko dara parce que li ko war a war nekku fa est-ce que alkaati bi mun na fa taxaw munu fa taxaw kan moo ko war a def muy état bi may wax mooy man mii mooy yow mooy keneen tableau boobu bu daanoo tey dañ kaa war a samp tey bu ñu gisee ku ko dindi nag ñu sanctionné ko kan moo ko war a sanctionné mooy ki ko njëkk gis mu ne ko coppet dem jaay ko ferrailleur man maay taxawu grand c'est pas une raison. nag pour ngeen war a mën a jël population yi def leen lu leen neex. di dawalee nu leen neexee. di di rey nit ñi nu leen neexee. en tant que chauffeur non yàllaay rey. lan mooy loolu. yàlla yàlla moo rey moo yàlla moo yor bakkan moo yor. wërsëg mariage sa invité bii. soo <laughs> xoolal yàlla yàlla. yàlla <laughs> moo moo yàlla moo yor bakkan mooy rey mooy dundal te moo yor wërsëg. <laughs> gis nga mais damay d'accord. ñaa on meurt toujours de quelque chose. ñaa waaw ah, d'accord. mais le dernier mot ça revient à Allah. xam nga lu may lu may wax tout le temps que ça soit dans tous les domaines ñun ñëpp nous sommes sur la défensive. wallaahi. koo koo dugg ci ci domaine am rek. Mhm. day xool nu muy défendre boppam. waaw ci positivement quoi. non non non gis nga nit ñi ah il faut qu'on ñun Sénégal ñu bëggee mu soppeeku du état du président Diomaye Faye du Sonko. dëgg du Macky Sall du Ablaye Wade du kenn. kon mhm. il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux. ñu waxantey dëgg. mais dañoo waxantewul dëgg loolu mooy problème mhm. dañuy naxante. am na oto yoo xam ne bu mhm. gaaree nga xool oto bi xam nga ne oto bi waratul daw. dëgg la kay. pourtant mu ngi daw laa waxaat léegi ku ko bàyyi mu daw. kooku dafa war dem fourrière. ok. te am na ñoo xam ne te dans tous les domaines am nañu toog fii tey di liggéey boo ñëwee yëkkati leen ñu génn takk brassard rouge di kaas alors que dañ ne la war a yëkkati parce que fi ñu toog mhm. waruñu faa toog xamoon na ko sax ba mu fay toog ne fii du place taximaan yii chauffeur yii li may wax naan benn métier la rek koor boo jël laal kenn boo nee benn ban barki démb dañuy xas benn animateur mhm. ma yëg ci sama bopp mhm. pourtant man je sais qu'en âme et conscience am na loo xam ne ñu ngi ko koy wax loo xam ne xëy na dëgg la mooy li may wax fii chaque jour boo nekkee ci métier fexeel ba. Hmm. am cay argument fexeel ba. Hmm. perfectionné wu ci ba ku la ca fekk du la yàpp. dëgg la hmm. am na solo. am na loo xam ne bu ñu la ko xasee doo ŋaan. parce que yaa ko def. ñun nag loolu mooy suñu problème et c'est dans tous les corps de métier Sénégal ñun dañu bëgg affaire taf yëngal. taf yëngal bi la war a bàyyi ku nekk def la mu war a def ku nekk jël ses responsabilités mais am la suñu problème chaque jour moo wax ko fii mooy du man ka ca des la ñu Sénégal même ci biir kër yi man def du man de du man maa ko def de mm-hmm. diw moo ko def mm-hmm. wala diw bu defoon lii ma def lii yow defal li la war rek mm-hmm. yow defal li la war boo defee li la war bu yàggee ki nga xam ne ñeme na dëgg lu ñu sundur naan yoonu dëgg boo ci nekkee di nga wéet waaye ñoom ci seen biir bu ñu toogee xam nañ ne yaa ngi ci dëgg xam la ma dul nangu accident du am yenn coono yu di am nit ñi di daj lu leen neex transport bi cher leneen ak leneen ak leneen ba pare ñu toog naan non état war a dóor a def lii état moo war bu ko jàppalewul du dem du buntu pale bi mm. duñ ko romb mm-hmm. parce que ñun ñoo leen fal boo falee nit ki da nga koy jàppale que ça n'importe nag quel président bu fi mën a nekk mais ñun sénégalais yi fi mu ne nii ñun ñëpp ku ci nekk da naan xaaral ma jóg état bu beesale xaaral ma jóg kaas mm-hmm. xaaral ma jóg wax li ma war a wax mm-hmm. démb j'ai pas aimé la sortie du du ministre mm. Dakar Dem Dikk mm. non non non non non non non du woon système bi par la limite sax da ngay toog sa kër nga ne est-ce que parce que dafa yomb. dafa yomb trop maanaam. dafa yomb le ñoom ñu génn wuy kaas wax seen wax après le ministre il se il vient. affaire bi du ay caaxaan. c'est un secteur boo xam ne dafa nekk ci ay problème tu vois tu es le ministre yoo lay convoque ñoom ñëpp ñu ñëw toog foofu ñu waxtaan ak yow c'est bien beau nag que levé nañu mot d'ordre bi commencé waat nañ liggéey dugg na fi génn fi affaire bu ñu defoon la nii rek mais c'est pas comme ça que les problèmes se règlent parce que gouvernement yi fi jaar yëpp ils ont fait la même chose mm-hmm. accident Mansour Faye day jóg heure bu nekk accident am mu jóg moo fay jiitu moog premier ministre Amadou Ba. Mm. Mm. ñoo fa daan jiitu. Mm-hmm. on va pas nag nous nous nous la même chose. on la même chose. barki démb Koungheul bu mm. accident bi amee. le ministre El Malick Ndiaye il s'est déplacé il est allé là démb Dakar dem dikk bu mu yëngatoo. moom dafa déplacé wu demaat foofu waaye tey bu taximaan yi grévé day déplacé wu demaat foofu. c'est pas comme ça qu'on règle les tout à fait tout à fait. gis nga da daan wax ne qui aime bien châtie bien gis tant que duñu sanctionné. on ne va pas s'en sortir sanction bi nag du ay sanction yoo xam ne da ngay tànn Amadou euh, Adama Fall mm. pare tànn Maria da maanaam da ngay segg da ngay filtrer du noonu mooy sanctionné da ngay sanctionné noonu yëpp ku ci nekk xam fi mu war dem ñi def visite technique bi nga xool leen mooy chaîne de valeur bi. waaw waaw waaw mooy chaîne de valeur bi ñi joxe visite technique ngay def ba oto bu baaxul bii jàll ah. visite technique ah. dañ ko war a lijjanti ok ni ngay def ba chauffeur bii nga xam ne yorul permis pour dawal camion des fois am na ay taxi yoo xamante ni duñ ñëw dañuy yóbbante rek dañuy yóbbante non musuma gis non musuma tax taxi bu ñëwul moom wuy ma waxuma taxi de am na oto yoo xam ne yàgguñu visite technique ah, gis nga loolu loolu moo tax ma ne la moo tax ma ne la boobu la état buy sanctionné état buy sanctionné mm-hmm. nañuy def ba oto bu baaxul bii di la romb ci tali bi nga xam ne oto bii waratu la daw ka ko jox visite technique war nañ koo lijjanti ci ko bàyyi mu jàll mm. war nañ koo lijjanti ki yor permis taxi di dawal camion dañ koo war a sanctionné c'est pas normal dëkk bi li ñu fi war a lijjanti moo bari de. waaw bon sinon gis nga accident yi nii ñuy wax nii. ok day gën a continuer day gën a dama dégg nga ne déplacement El Malick dem Dakar Dem Dikk. c'est pas évident c'est pas du tout man de pour man moom. waaw man damaa jàpp ne war na faa dem nag ndax moom lañ dénk secteur te liñ ko dénk moo am problème yitte la pour mu sol dàllam dem fa. xam lan moo xew doog a woote waxtaan parce que booy woote waxtaan da ngay xam ci lan ngay woote waxtaan avant may ñëw fii dama waxtaan ak benn chauffeur bus dem dikk ne ko damaa dégg léegi lii mu ma loolu nga dégg loolu moo am ay bus yoo xam ne ni yu bees ñu toj leen te ña leen toj ci biir dépp ba lañ ne te toj boo xam ne ni toju. yàpp ñu ne war bu ñu ko tegee ci yoon. xoolal toj eh. jaay de ñun dañ leen war a dàq. est-ce que dàq nañ leen. no non àggaguñ foofu xëy na te xam nga ne. xam nga ñu toj ko. non xam nga ñu toj ko. xamuma ko. <laughs> moo tax may la El Malick le ministre mënoon na bañ a déplacé wu démb toog xaar parce que xamul tax xaaral ma xamul tax télé yi ah. télé yi il faut faire attention dañuy dem jëli information ah, bi les gens bu leen dégloo ñu ah, communiquer ci seen mm-hmm. li leen métti mm-hmm. ay wuy dañoo fal diw dañoo fal diw affaire de gis nga affaire de personne la dëgg la bus yooyu sénégalais ñoo ko moom c'est pas parce que dañoo fal Adama Fall Adama Fall neexuma que damay toj bus le ministre il vient mm-hmm. ñu génnee le directeur il parle de nit dafa dem retraite ki topp ci ginnaaw moom laa jël fal ko sa peut se comprendre. Mhm. mais nañu woo directeur bi ñu xool ñu toog ak moom toog ak mais pourquoi ñuy toj ay bus on doit aller foot dehors. voilà pourquoi ñuy toj ay bus. voilà léegi nag. teguñu ko fenn. non non moo tax ma moo tax mooy dàq affaire yooyu noonu mais kii war a dàq jël euh, le dernier mot mooy ki dénk secteur bi. mun na bañ a dem sa fa coow la amee. mun na bañ a dem je suis désolé. waaw xam nga lu tax. ba tey xam mun na bañ a dem. waaw léegi day yoon ne ce que. il y a des directions. il a un DAF il a d'autres yoo xam ne. waaw gis nga gis nga ñun sénégalais ñoo xam la mooy suñu problème loolu c'est un problème culturel ñun. pour ñun bu ñu amee problème tànk kilifa gi jógul ñëw. tey jii xalal lañ dem ba ci kanam. bu bu mu amee màggal am. cérémonie religieuse affaire yooyu bu ministre intérieur demul. Mhm. famille bu nekk bu la neexee nga toog fi nga toog ne yëgu ñu ma loolu mooy sénégalais mais gis nga affaire yooyu il faut mu faut mu dëñ problème dafa am Dakar dem dikk lu ministre El Malick kilifa la nga toog fi mu toog mu yónnee. waaw léegi. te gis nga affaire jaratul yónnee sax léegi téléphone bi euh, télé yi. lépp hmm. lañ lay woon. d' accord c' est à dire xam nga secteur bokkul màggal gàmmu ak secteur bi man jàpp naa ne bokkul. benn la kilifa bi man waxuma euh, ñaa secteur bi de waxuma secteur dama ne taxawaayu kilifa bi. waaw gis nga ñun. jamonoy Abdou jamonoy Abdou xam nga ñoo fekk ñu nekk ay xale. Eh. mais tey da nga ministre yi boo leen gisaan da nga leen di xoolee bët yu parce que da nga leen daan jàpp c'était des hommes d'état. dañ doon yoo xam ne dañoo raax. Ah. neexuñoo jot. neexu mhm. neexuñoo gis. Mhm. te dugg ñu ci ay falaa falaa. dëgg la. gis nga il faut qu'on arrête c'est pas parce que c'est pas parce que da ngay da ngay da ngay def bëreet bi dal na fi président Macky Sall dal na fi Abdoulaye Wade am na yoo xam ne tey jii ci ci ci ci ci ci ci reñu Bassirou Diomaye Faye mm. dafa war a jeex parce que ñoom dañoo fekkee ab Abdoulaye Wade fekkee Abdou Diouf fekkee fekkee président Macky Sall li leen dal ñu bari ñu defaat les mêmes erreurs et je suis désolé de mm. en train de commettre peut-être les mêmes erreurs. ok mais on ne le dañoo bëgg ñu avancer euh, c'est bien dit de dire euh, peut-être dama ne man rafetlu demam. c'est c'est ton droit. ok xam nga bu bu ngeen grévé yéen taximaan yi bu ñu grévé suba. waaw <laughs> jógaat demaat. non man moom grève bu ma def rek dafa am ay argument yu leer nañ ma def ko. tegu ko fenn seen grève. waaw waaw c'est-à-dire duñu. xam lan la ñuy créé. waaw yaa war gaynde bi. <laughs> ay war gaynde waru daw. ay jakarta non maa ngi ñëw xam nga xam nga voilà. ku ma ci bëbax nag ma jël yaa ma ci bëbax nag. xam nga sànq yaa ngi doon wax ni ñun dañ doon wax ni non heure bii waruñu daw dañ ñoo war a bàyyi ñu daw heure yi nee naa la lépp luñ bañ am na lu tax bañ bañuñu man mi nee naa non daw guddi bi benn instant am na fu mu baaxee de mais am na foo xam ne baaxu fa. am na chauffeur yoo xam ne nii boo leen waxee kañ dem guddi ñu ne demuma c'est parce que mënuñu dawal guddi mais am na ci ñoo xam ne ni mën nañ dawal guddi. am na ñoom ne guddi rek la ñuy dawal. yaa ngi may dégg bu baax Sénégal du dakaar am na ñoo xam ne ña nga dëkk Daara Jolof horaire moo leen arrangé parce que am na lu ñu war a mën a lijjanti Dakaaru ñibbiwaat Daara Jolof ci jour bi. horaire ban heure lay jóg. waaw kay horaire day départ deux heures du matin. moo dul yoon. ça dépend. xam nga fu ma dul waxee non bu na du yoon parce que boo amoon sa particulier am sa soxla boo war a doxi Kaolack ñu wax la ko muy urgence ab dëj doona xaaral mu bàyyi ba suba ku ñu war a denc 10 heures non dañu waxtaan non man bu ma wax dama daa ci dawalkat laay wax par mesure de sécurité waaw yow miy dawal waaw xam nga sécurité bi nga mën a am ci bëccëg bi amuloo ko ci guddi gi ça dépend ci chauffeur bi déglu rek déglu rek non gis nga déglu dañuy waxtaan gis nga dafa am heure puisque yow da ngaa da ngaa da nga sànq ba léegi yaa ngi wax wax yàlla dafa am heure xam nga fii sànq ba yaa ngi wax wax yàlla guddi guddi daa am ko moom dama lay la même chose guddi dafa am ñu ko ñu ko moom waaw lii xew ci tali bi guddi gi yéen chauffeurs yi xam ngeen ko am na luñ ci xam du dëgg donc par mesure de sécurité yow gaa yi bëccëg la ñuy daf sax daw sax di def seeni njombe asamala guddi guddi gi guddi dañ ko defar pour noppalu ko dallu. dëgg la pour nelaw defaluñu ko pour fët fëti li nga ciy gis ñi ciy liggéey yëpp ci ay problème la ñuy nekk gis nga am na loo xamante ni. suñ ko bay bayee bu continuer du dem su ma ñëwee ci problème Dakar dem dikk c'est un problème purement politique. xëccoo positionnement. parce que xam nañ ni nguur gi dañ na am na ñoo xamante ni soxla nañ poste boobee. man duma politique mais c'est ce que j'ai senti. c'est un problème éminemment politique bu mu la bett suba. ci conseil des ministres. Ah, ah. ñu dàq ministre ñu dàq DG ba bu mu la bett. waaw su ko jaree. waaw non déglu rek no non non non c'est-à-dire xam nga problème bi lan la. na ko jar rek. xam nga man lu ma d'accord. waaw ci secteur transport la toujours. waaw yow li ñuy kaas mosuñu ko kaas. waaw mosuñu wax ni salaire yi dafa ndaw. mosuñu wax nangam sangam. Mhm. la nomination la promotion revient. c'est un droit au directeur général. ci anam ci déglul baax li ma la dama ne. su nekkee dafa am poste bu vacant. waaw ka fa nekkoon retraité. Hmm. ka ca teppoon ñu jox ko ko. Mm-hmm. loolu mooy liy yoon. Mm-hmm. dëgg day am ñu muy arrangé. am ñu mu arrangé wul. ña mu arrangé wul su ñu jiitee syndicat ba ñooy def tolof tolof ñu àndi yëg-yëg. parce que tey jii ñu toog. Mm-hmm. am na ñuy yëngu ci biir Dakar dem dik pour diriger kër gi yow xamoo ko. Mhm. te coow lii am lundi. Mhm. man bettu ma ba ma demee foofu di dagg billet pour dem Louga. yëg naa ko ña ko doon ruuma naan ña ngi koy doon waaj ci suuf. Mhm. parce que syndicat yi ña ngi koy dox. donc c'est prémédité. parce que tey ñay liggéey Dakar dem dikk ka gën a fës. benn nit la mi ngi tudd Jibi Guèye Ndiaye xam nga ko noonu. déedéet. Jibi Gueye Ndiaye mooy chef protocole Ousmane Sonko. ko fa lay liggéeyee. fa lay liggéey. ok mooy waaju am taxawaay ji. te mu njool. waxuma moo moo soxla de waxuma. Mm-hmm. mais soo nee ma nga fay liggéey rek. donc xam nga ni kër ga am na ñu fa soxla dara. waaw ko fa soxla dañoo bari. lu mu tuuti tuuti am na ñett nit yu taxaw pour pour bëgg ñu jox leen kër gi. te ñaar ñu biir Pastef la ñu bokk kenn ki syndicaliste la. ñooñu du ñu bëgg kër gi yëngu du ñu bëgg kër gi dox pour l'instant pour ñu sàqal pexe directeur général bi directeur général bi nag xam na ni day dem tôt ou tard. xam na ko xam na ko day dem. mais nañ ko defee ñaaw na. parce que bus yan ñu toj. waruñu ko woon toj. tey direct ministre ba. du moom mooy dàq ñooñu. kii dàq. directeur général ba moo war a sanctionné. mais fii nee nañ ko puisque yow ñi fal waroo leen fal. Mm-hmm. donc ñii waroo leen dàq. Ah. Mm-hmm. taxawaayu ministre ba ba mu fa demee. waaw mooy jëlal say responsabilité par rapport ni yàq di kii bi. waaw parce que moo fa nekk. parce que moom moo fa ne ba tey. waaw dëgg la li mu ko waroon wax mooy taxawaay ba mooy jëlal say responsabilité yow effectivement. sanctionné négativement ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi. moo doon yoon de. loolu mooy yoon. waaw d'accord naa. mais pas taxawaay bi nga xam ne da nga def du populisme. ndax nga am fii gën est-ce que tu comprends. Ah, xam nga lu fa ne. man ñëpp laa yemale xam Macky Sall bi mu fi nekkee Dakar dem dikk. noonu laa daan jàkkaarloo Adama Fall. moom nga ah, Dakar dem dikk waaw Dakar dem dikk. secteur la boo xamante ni bëriwuloon coow. Mm-hmm. waaw bëriwutoon coow. waaw wala déet te pourtant moo fi ëppoon coow. dem na benn moment dafa stable. Mm-hmm. travailleurs yi kenn déggu leen. Mm-hmm. bus yi di liggéey normalement. su problème amee la ñuy gaare seen bus topp jàpp seen jàmbur te terewul dañ leen koy fay weer bu dee. mais ba changement régime amee. positionnement yi taxaw. Mhm. xëccoo yi taxaw ku nekk bëgg a jiite kër ga parce que pour yow da nga war a taxaw jiite mbir mi. dañoo juum donc soppeeku du am. rupture bi nit ñi wa doon wax. démb ak barki démb du am ca Dakar dem dikk. doo Dakar dem dikk kese xamal tax du am ñun Sénégal keroog xam nga maa ngi koy wax suñu invité bi fii xam la mooy suñu problème. Mhm. dangay ngay gis régime bu bees ñëw gars yi ne ñun ñoo falu. waaw comme ñun ñoo falu. Mhm. ñun ñoo doon xeex ñun ñoo doon def lii ñun lépp ñun ñoo ko war a jël. bokk ci gétt gi naan ci meew bu ko loolu loolu c'est fii la dëgg la li ma sama seex bi di wax léegi Atouma nee na ci boobu la ñu war a réinitialiser. dëgg la nangu naa loolu. seen taximaan yi sax léegi ñu jóg. bon gis nga gis nga bokkoon Pastef hmm? jamono jamono jamonoy jamonoy campagne dama leen daan wax ne leen. Ah, da ngay gis les artisans de diw. fa nga bokk fa nga bokk. waaw fa laa bokk da ngay dégg da ngay dégg Adama Fall. Hmm. les artisans de de de l'APR. les artisans du Pastef les enseignants d'hôtel loolu dama kaa mas a kaas fii. dëgg la c'est vrai. parce c'est un corps de métier boo xam ne yow moomuloo ko. Mhm. dëgg la tu veux pas dire man enseignant laa jàngalekat laa mais fii laa far. Mhm. taximan laa mais fii laa far yow faral rek. waaw yow faral rek. parce que quand tu parles des taximan tu parles de tout un corps. dëgg la te ñëpp bokkuñu foofu dëgg loolu tànk que ci réew mi. dëgg la fi ñu jëm du neex. d'accord naa. ma dellu si waat ci animateur bi ñu doon xas barki démb. Mhm. mais dafa wax loo xam ne neexul neexul neexul Serigne Saliou Gueye sama journaliste bi sama frère bi euh. Serigne Saliou wàññi ko ci antenne bi au lieu de dire que Serigne Saliou dafa far parce que dafa far uh-huh. dafa ah, moo tax kenn du ko xas kenn du xas Serigne Saliou uh-huh. ñu jël kële laminé ko génne ay ay ay lu la ñu defal lu la ñu def ko ko parce que tout simplement il a osé mm-hmm. wax xalaatam du la vérité de ah, du la vérité la wax ah, mais dafa wax xalaatam dëgg la mais c'est pas parce que dañoo toogoon di animé ci rajo Kader maa ngi lay nuyu baax a baax c'est mon frère c'est pas parce dañu toogoon di animé ci rajo ko amuloo droit nekk chroniqueur wala mënuloo nekk chroniqueur wala amoo xam-xamu nekk chroniqueur il faut que les gens arrêtent. gis nga nit ñi boo leen nanguwul a déglu. Mhm. ku ci nekk nga nga respecté ko du ñu dem fenn ci réew mi nañu bàyyi xeebaate bi ak xastante bi. dëgg bàyyi xeebaante bi ak xastante bi te tant que loolu mu ngi fi nekk daloon nañu ci président Macky ku faral président Macky Sall lu mu def nga ne waaw bu ñu demaatee fii ñu nekk nii fi ñu toll nii yéen. ku ñu fa ku ne ku ne ku ne jomaay lii ngeen ne la mu def baax na duñ ko jàppal dimbale wu leen ko de. te bañ koo déglu. dimbale leen ko de. kon waa ji. waaw ñu ngi koy dimbale kay. déedéet. waaw léegi. <laughs> dimbale leen ko kon kon kon mun naa jàpp ni. Euh, ça c'était de cœur muy ñaari nit yoo xam ne seq naa ko ak ñoom. Mhm. muy Serigne Saliou Guèye. nga xam ne ba may jàng rajo laa ko xam c'est un journaliste je le connais très bien keneen ki di Kader c'est mon frère dama daje moom tout le temps tout le temps tout le temps mu di ma woo di ma encourager maa ko jiitu ci rajo jiitu ko ci télé mais c'est pas parce que il a été animateur de rajo di animer musique que warul mën a def leneen man animé naa musique te maa ngi def leneen. il faut qu'on respecte les gens te Serigne Saliou nga def yërmande ci mbir mi du sax yërmande mais nga équilibré sama grand frère na équilibré parce que c'est un grand journaliste il n'est pas n'importe qui am na yoo xam ne moom waru ko c'est un cri du te daf maa métti trop moo tax ma di ko wax parce que bu ñu ma ko defoon tey dina ma métti dina métti kii dina métti keneen a keneen dina ma kaasal te warul mën a nekk warul nekk dualité gars yi nañuy waxtaan mm-hmm. nañuy waxtaan waxtaanu xel yéen itam ngeen ñuy déglu déglu xel chauffeur yeeg ñooñu ñu dellu si waat ci bi ngeen di déglu nit ñi ak xel dégg nga d' accord. c'est vrai ay yax lañu war a jël rek di leen duma. non non am non non am na. dama cee bëri xarit. non cest à am na ñoo xam dañ leen a duma. ci ñun am ñoo dañ leen war a duma. wax dama ko yàgg naa ko wax am na ñoo xam dañ leen ci war a seppi. Hmm. am na ñoo xam ne dañ leen war a jubbanti. c'est-à-dire bi def kii bi démb. ki def accident kooku lan nag lan lan moo war a nekk taxawaayu. très bien. par rapport à saw permis en laay wax. par rapport à saw permis waaw waaw waaw da ngay dem ci source ba maanaam da ngay da ngay approfondir maanaam doo yem ci sëfoor bi kese. kon nag chaîne de valeur bi yëpp ngay dàq ba ca ministre. non doo doo non non mën ngaa bañ a dàq. mën nga sax bañ a dàq. mais am na fooy jaar waxuma la moom waaye keneen bu ko déggee balaa ngaa jëlati sëfoor di ko jox oto dana am loo respecté ci moom ba pare dana am loo xam ci moom. ba pare doo ko jox oto parce que oto transporteur du oto personnel kii yëpp ay nit ay bakkan la. ñuy jël seen ñàkk di la ko jox. pour yóbbu leen. ñooñu dafa am loo warloog ñoom am na ci responsabilité boo xam ne fii la yem mais am na loo xam ne ni yombal xiyaam day leer déggoo ma de am na loo xam ne suñu borom da koy atte parce que nit mënut a jël ñàkkam jox la ko ba pare nga ne yaa ko war a sécuriser ba pare benn di ko agressé wala di ko boole ay ah, agresseur agresseur bi yem agression yi moo ci jaaxal. yaa ngi dégg ba pare di ko boole ak agresseur. xam nga beneen ak beneen bi. sérieux non oh, déglu am naa nii. no du moo tax may la comme taxi la yor. waaw dañu naan taximan la. waaw dëgg dama la koy non la koy nangul. mais dañuy dawal taxi di agressé nit ñi léegi. c'est-à-dire dama xool dama lay nangul xam nga. xam nga li gën a ne ki toog ngeen ki ngeen di waxal nii mi ci biir te lépp daf ko xool xam ko di su ma lay yabee maa ngi yow dañuy waxtaan waxtaan boobu ñuy waxtaan dama ci am dama koy am fu ma ko bind di xaar bés parce que xam naa ne bés bu mel nii incha allah bu suñu ci déggu bàyyi yàlla ñu fi waaye ci kanam. dana am ndax leer na ma da nga ci waxta dinaa la ci tontu parce que la ma lay tontu dama cee am lu ma leer dama ci am jigéen boo xam ne nii comme li muy wax ni kii dawal taxi li ñuy wax taximaan la ñuy wax. Mhm. est-ce que moom am na li tax muy doon taximaan est-ce que tamit mën na am ba pare jubadi. est-ce que taximaan. non mën na nekk taximaan ba pare jubadi. jubadi na mën na nekk taximaan. imagine nga agressé jigéen. est-ce que yaa may dégg jaar ak moom fa nga xam ne nii. leer na ne fi jaar waa ji ndaw si nee na da ko xam nga fan la ko wàccee VDN 3 ci amoo 4 bi la ko wàccee ci lëndëm boobu nangu li muy yor ci weeru koor bi laa la wax de nangu li muy yor nangu xaalisam nangu mu jëndoon pour doomam ak yépp dem yoonam bàyyi ko foofu am na taximaan yoo xam boo leen woon fii di leen laaj li ngi leen laaj xam nañ ne dëgg la mais duñ ko wax xam nga li tax parce que dañ cee bokk. mais yéen nag lii moo tax. ma lii moo tax ma ma gis ni. waaw yi bàyyi nañ leen fi ah. non non non confort ak sécurité moom confort ak sécurité amatul ci taxi. non defal daal moo tax gars yi gars yi di di jël application yi. di bàyyi bàyyi bàyyi yi ngay def. ah déet. bàyyi ma ñëw. Maria non. Hmm. parce que lii nii lii. lii Maria lii du dëgg du yoon. Maria xaaral foofu xam nga lu tax bu ko topp dafa dafa laal fu baax fu ma bëggoon a wax. <laughs> fu baax la la fu baax xam nga lu tax ngeen di xeex ngeen xeex jakarta yi xeex war gaynde yi di xeex ñeneen ñiy def léegi transport. transport waaw ne de ci boor transport irrégulier anormal. xam xam nga lu tax dafa irrégulier c'est mais bu fekkee du moment que yow mi nga xam ne yow yaay yow yow yow yaay client bi mhm. tu es sécurité. ci particulier ci defal naa ci transport irrégulier boobu. waaw mais nga dem jël ko. waaw oh, ñàkk xam la. Eh. noo xam li tax parce que yow ba booy jël particulier am na lu tax nga di ko jël noo yow da nga jàpp ne foofu nga uppee sécurité amoo fa sécurité nag. ndax la waaw kay parce que benn. kii def transport dafa am lu ko may mu nekk mu def transport dafa am du ko ko may. Hmm. bu njëkk bi mooy chauffeur bi. le conducteur war naa am transport en commun benn. war na am livret de conduite bu dee taximan la assurance bi muy dagg day assurer client client bi en cas accident. mooy assurance tout risque. non bokkut ak ba tey. Hmm. assurance bi auto transport di dagg dafa cher. dañ ci sóoraale client bi bu amee problème tànk ba damu walla dara am na droit topp assurance oto bi mu faj ko dañ koy sóoraalam ñun. particulier bi amul loolu bis bu day dagg assurance naan assureur bi damay def transport danaan ko ba ko fi du ma la ko daggal parce que munoo yor amoo licence amoo benn autorisation pour nga def transport ba pare di am trans di am euh, euh, assurance particulier ba pare di yab ay nit di leen laaj xaalis. Mm-hmm. yow boo ko xamee mu leer na loolu mun na la ci fekk boo ci duggee loolu sa responsabilité la mais ñun droit la pour ñu xamal na lii moo tax ñun ñuy def transport ka keneen kay def leneen. mais kon yow bu la neexee yow systémaria nga yor sa particulier boo wàccee dem am na benn booy bu mën a def yooyu gars yi di def nga jox ko mu dem defi ko. mais loolu moo fi am léegi. xam naa loolu li c'est loolu moo tax. ñu ne xam nga lu tax mu am. lan moo tax parce que vous gis nga c'est vrai euh, c'est vrai dafa am ku ma ne ko. ah da ngaa da ngaa vous avez prêté le flanc waaye ku am ku ma doon waxal non kii laa àndal. li ma la wax noonu xam nga lu tax <laughs> ok. xam nga dama wax keroog benn waay. ñu ngi koy nuyu baax a baax Souleymane Diallo fekk ñuy waxtaan ci affaire étranger yi nekk Sénégal dugg na fi génne wuy dañoo ñëw jël suñu gi ma ne leen. Mm-hmm. boo ñëwee ci réew. Mm-hmm. fekk waa réew ma nanguwu ñoo jaay kafe mm-hmm. dañoo rus a jaay café jeune réew ma dañ ko rus man ma ñëw xam ne secteur bi bu baax la ndax Maria fu mu romb kafe jënd ma teg sama place di jaay café ok yow doo yow comprendre nga maanaam dégg maa la ay oh. boo ñëwee ci dëkk. oh maa la waa dëkk ba waroon a def mënuñu koo def dañ ko rus a def. dañoo rusa liggéey liggéey boobu boo ko rusee liggéey ba pare jànguloo école amuloo formation rusa def loolu damay xool secteur boobu fa mu gën a yombee njaayum ndox mi mën naa koo def parce que waa Sénégal defuñu ko ma def ko génn ca taximaan yi chauffeur yi yi nga xam ne ñoo am droit def transport hmm. nañu gën a tegu ci yoon nañu gën a set hmm. mu gën a set xaaral rek ma ñëw am na ci ñu dañuy dugg taxi am na ci déet xam lan laay bañ am na ci def loolu mooy yoon dafa war a nekk d'accord na te loolu yéen ko war a xeex d'abord bu ngeen ko xeexoon ba mu tegu ci yoon ma am na taxi yoo xam ne su ma ci xasee ba dugg hmm. damay jël sa numéro téléphone parce que ba dina service oto ba dana set du saaga wax téléphone clim ba même bu clim bi na taximan yoo xam ne boo duggee dañu ne ci biir TikTok di dawal di TikTok di WhatsApp faalewuñu client bi ñu yëpp boo prêter le flanc nag dugg ci oto yooyu noonu ngay wax ñoom boo duggee dañ lay di nuyu niñ lay nuyoo neex na dinañ la conduire du ñëpp nag mais dinañ la yóbbu fa nga war a dem teg ko ci yoon bëriwuñu wax duñu saaga duñu mais taximaan baa nga jël loxoom sànni ca mbedd ma samay xolal cer na koy sama rakk la taximaan la Ousseynou moom ma yóbbu chaque jour Cheikh Sarr su ma la limalee taxi man yi mm-hmm. doom ay bàjjan lañ may wax mm-hmm. kon xam nga ne bëri naa ci xarit mais dañoo war a góor góor góorgóorluwaat gis nga am na loo xam ne sa métier boo ko deful na nga ko war a defee mooy ñi rek ñun ñi rek ñun ñi di animé nii tey ku jóg animé waaw dëgg la waaw dëgg la tey ku jóg animé mm-hmm. mais les meilleurs vont rester dëgg la gis nga ñi nga xam ne ñu ngi koy teg ci yoon ñooñu foo leen fekk ñu ngi am client nit ñaa ngi leen di woo ñoom duñu soxla sax di wër di wuti client nit ñee leen di woo wala waaw wala déet waaw dëgg la ils seront toujours dignes waaw waaw wala am na taximaan yoo xam ne xoolal ranguñu fenn d'accord demuñu garage demuñu fenn da ngay toog sa kër suba teel sa téléphone sonné sa client woo la ne la kaay damaa bëgg nga yóbbu fi parce que xam na ne taximaan ba il est correct d'accord mais client bu baax nag amatul ah lii yow yaa wax lii man taximaan la mm, yaa wax lii te client bu baax yow sa taxi baaxul sax non sa taxi waratul daw <laughs> yow yaa wax lii client bu baax waaw ak a jafe mais bu ne amatul waaw waxin waaw. maa ngi nii man mi man mi taxi maa ngi seen doom di leen woowee bàjjen déggin la laaj bu mën a client bu baax amatul nam amee nam bëree woon bëreetul noonu man ku ma a yaay sama taxi yaay dama dama la bëgg def taxi man waaw rek laa lay wax waaw laa lay wax parce que xam naa ne duñ yàgg. dama lay wax li tax dama lay wax tax du yàgg. am na ñoom dañu bëgg lu yomb dañuy toog sama kër sama taxi man laay woo. te xamoon taxi boo ko déplacé buy ñëw ci yow romb na client est-ce que yaa ngi sóoraale ne fa mu jógee mun naa nekk géejawaay yow doo ko lijjanti sama man baa ngi ñëw ngay wax. ah mais loolu taximaan bi koy lijjanti. waaw moom laa lay wax nii man foofu laay ñëw moo tax ma ne la client bu baax yombatul parce que am na ci ñoo xam ne tey boo leen waxee fii laa nekk de est que mën nga maa xaar day toog ba ci yàgg il est impatient non xaar naa la ba sonn te fekk na ndeysaan bàyyi nga lu bari ak distance bi nga daw. boo bu ñu ko defee benn yoon ñaar yow dootoo ñëwati bu la wooyee nga ne ko damaa sori même boo nekkee taatu këram da nga naan damaa sori moo tax man la client bu baax yombatul mooy client boo xam ne su la wooy ak koo mënta nekk dalay xaar et dalay woo à temps boo ñëwee mu jox la xaalis bu bari mais client yi yi fi yi ma gis nii koo ci ne tànga ba jox ah bari na kat te xamul ne le temps perdu ne se rattrape jamais dañ lay woo doxaloo la ñaari course téel la deux heures de temps saa yow gars yi ñu ànd ak yow. ci biir te émission bi mag lu mu nangu. waaw parce que maa ngi ci biir xam ni dama koy dund moo gis ah. ah. ko ko parce que man soo ma woowee. ak soo ma woowee. Mm-hmm. ne ma damaa bëgg nga ñëw jël si ma. waaw ma ne la ah man de maa ngi tel endroit. gis nga commencement fam loo xam ne ci commencement nga koy faj comme sëy la boo ko fajul ci commencement du yegg. maa ngi ñëw ah. waaye su ma ñëwee de passe bu doon 3000 la 5000 lay doon hmm. balaa ngay déplacé wu ñëw hmm. bu ko nangoo mu jël bu ko nanguwul nga seeti leneen mu seeti leneen moo tax man la bëreetul man noonu sama bëgg ma sama doom école mais grand yow <laughs> boo dajee boo dajee boo dajee sama rakk ba mu ne nii loxo bi di déglu whatsapp def ah gars yi ñu wax ak ñun taximaan la xoolal ah. man sama rakk Thierno Gueye taximaan la ñeme naa koo tudd moom mais Thierno chaque jour ma ne ko. oto mën naa âgé. ñaan chaque jour ko Thierno bàyyi kii amul benn confort ñaa wuy ma fi da ngeen wuy maa ngi nii toog de ci plateau bi yéen ñaar faa leen beeg ña ngeen. Thierno Gueye lu sikk ci taxi maa ni ma jox ko Thierno Gueye. Uh-huh. bëri na dosé day sànni loxo bi ci biti di naan ndox di wax di lekk ba pare di déglu WhatsApp audio fu ko teg tegu ko fenn moom ak ay moromam. ko fenn te da nekk ci taxi mu di ko def taxi dafa réew ok <laughs> xam nga dafay problème yi dafa bari de dans le secteur du du transport. man man man man damay man man damay damay damay déglu. non waroo sax déglu non non déglu non non naan man booy déglu nooy def man ma neex di déglu te du ma dawal bu neexee déglu taxaw. gis nga ñaar non non non. ñaar moytuñu ñaar yaa ngi di wax rek caa gars yi ñuy wax de nee nañ sa oto bi sax dafa màgget. waaye waaye yow bàyyi ñu ñooñu. ñaar moytuñu. déglu non non eh. oto bu màgget xam nga ñoo woy oto bu màgget waaw oto bu am état boo xam ne nii ku ko gis xam ne oto bii mënul dem Pikine. taximan daal xam nga lu muy mel. yaa may dégg ba oto mun naa âgé lu ñu wax lu Sénégal lu ñu wooyee âgé. âgé mooy lan. Sénégal xam nga lu ñu wooyee âgé. waaw ñoom waxuñ âgé ci maanaam ci oto boo xam ne nii état bi amul confort ay affaire yooyu xam nga oto mun naa. am vingt ans oto bu màgget mooy lan. ah oto bu am vingt nag waratul daw. grand waaw mais mun na am vingt ba pare ba pare dëgër. normal oto da xoolal da gis oto bi ne oto bi yàgg na de oto bii de moomu mag boo gisee day rafet set wecc est-ce que may dégg. gis nga ñaa day rafet set wecc. mais mais ñaa est-ce que ñun waruñu waruñu waruñu demander état bi. waaw état du Sénégal. waaw. mu réformer waat oto yi. Hmm. parc automobile bi ñuy laajte parc automobile que oto yu màgget yi. ñoo andi problème bi mais ñoom ñoom loolu la ñuy wax. non déglu rek non parce que foofu la foofu la secteur bi war a toll. yow taay dégg naa ñu ngi ay taxi ay taxi yu ñuy joxe nekkati affaire la woon. waaye man xamoon naa loolu dañ ma envoyé affaire yi man leen ay dóor la li ma njëkk xam ne ay dóor la parking bi sax du Sénégal boo xoolee immatricule yi xool ko bu baax du plaque Sénégal ba pare parking bi xool nga ko amul Sénégal loolu rek laa xool man leen du fii dañuy ay dóor la ku ci dugal sa xaalis léegi nag léegi nag solution bi xam nga mooy lan xam nga solution mooy lan ci ah. chauffeur yi d'abord. Ah. mooy li ñu doon wax sànq li des temps bi ñu leen gaare. gis nga ni ñu defee démb ba arrêté travaux yi ci littoral bi. Mhm. lu yomb la ci état état lu mu deful da ko bëgg tamit. billaay wallaay taala. oto yi warul daw ci tali bi. bu ñu mhm. leen xëyaloon benn fan. oto yëpp la ñuy gaare ji. duñ ko def. buñ ko gaare ji non dañ ko war def xaar rek. xaaral xaaral ah déet dinañ ñeme parce que yow mii yaa toog fii léegi ne Pastef nga bokk yow lañ koy waxal dañ koy ah, dañ ko war a ñeme ah, waaw yàlla naa jot ci ñoom dañ ko war a ñeme di nga jot ci ñoom parce a war a wax nit ñi dañuy hmm. ne oto yi am ñu am 15 ans ñoom ñoo koy njëkk a kaas ñu ñu am 15 ans ñu ëpp 15 ans nañu dem toog yéen a koy njëkk kaas kon yow kon ay waay kon li xamoo ma non waxuñu yow man damay applaudir. waxuñu yow waaw ah waxuñu ah, yow xam nga xam nga gis nga nit xam nga sànq sànq si sa biir wax da wax benn wax bu am solo da nga ne bi ñuy wax affaire permis à point boobu pareeguñu ci bopp bi. ñun Sénégal mosuñoo pare ci ci changement. mais sax fi mu nekk mm-hmm. gi ñu ngi jël ay disposition ñu ngi def ay affaire ñu ngi ci liggéey bi fii ñu ngi def ay affaire léegi nga gis Sénégalais yi commencé jàmbat di kaas waaw ñu def lii ñu def lii alors que pour nga defar il faut nga toj. d'accord tey bu ñu génne bu ñu génne woon bu ñu wàññi woon oto yi nga xam ne waratuñu daw circulation wàññeeku. maa la wax loolu dootul bari parce que ñi waratul daw ci Sénégal ñoo ëpp ñiy daw. ñu xool ñi nga xam ne ñoo yor permis âge bi nga am daf ci war a compter. Hmm. tey xam nga doo gis doo jël benn ñu Gningue mu nekk mag yor njabootam nga jox ko oto mu cay def lu ko neex kooku ruus na sax policier arrêté ko mu manqué benn kayit moom. dama ko xam nee na ma rus naa policier arrêté ma di ma toroxal parce que sama këyit dafa am benn bu ci manqué xam nga kooku war naa mën a nekk kooku taximaan la vrai taximaan la ndax lan dañ ko toroxal nee na moom buggul manqué wa buggul manqué këyit mhm, mhm. benn papier buy war a tax ñu taxawloo ko ci mbedd mi di ko ñàkkal fayda kon kooku xam nga li ko war yëpp dina ko def balaa muy génn këram dina vérifier ay kayitam dina xool otoom dina def li mu war def ba pare civilisé ba pare yaru oto mën naa am këyit ba jàpp ko comprendre li may wax ki bañ ñu jàpp ko pour kayit. Hmm. damaa bëgg nga déglu ma de ki bañ ñu jàpp ko pour kayit dina rus ah. a def infraction. comprendre nga li ma wax. ki nga xam ne bëggul xale policier bi téye ko mu wóor ko ne policier bi xëy na mun naa nekk moroomu doomam. Hmm. toroxal ko ci mbedd bi yàqal koo fa mu bañ ñu téye ko ndax kayitam. Hmm. kooku dina rus a def infraction buy tax ñu téye ko. comprendre c'est un comportement. c'est un boo xam nit bi yow yaa xam ne man mag laa man kilifa laa man lii yëg lii yëg lii jombale naa ko sama bopp ku am looy jombale sa bopp dina am loo xam ne doo ko def. infraction dafa sew de. chauffeur bi waxuma loolu ñëpp laay wax gis nga gis nga dégg bi dafay am solo waxuma pour xaste. waxuma pour waxuma pour ŋàññi leen mais dañuy wax loo xam ne gis nga dafa am loo xam ne boo ko jombalee sa bopp. waaw naa la boo ko jombalee sa bopp doo def ba ñu la cay fekk. gis nga chauffeur bi bu démb bi bu démb bi. Mhm. chauffeur bi am na loo xam ne bu ko jombalee woon boppam loolu du am dogalu yàlla doogu ñëw nag. <laughs> comprendre am na loo xam ne yow mi ne ci biir oto bi ngay client bi di fay sa xaalis. am na noo xam ne boo ma ko bëggee dawalalee mën na la hey taxawal. parce que dama laa fay. ba ci taximaan bi. man bu ma jëlee taxi moo am lu muy dawee Adama Fall dama naan la defal nànk sëñ bi man tàppet tàppet laa laa lay wax. Mhm. damaa ragal tali mos naa dugg taxi ne waa ji pont bi dama koo ragal xam nga lu ma wax. Mhm. lii loo ci ragal ma noppi. ok Serigne ma noppi. ok waxatuma. ok parce que tontu ba ma tontoo métti te fekk na mag la de pourtant. moo tax may la am na loo xam ne boo ca nekkee di liggéey boo ca deful la nga ca war a def ay nit ñooy jóge fa la ñëw nangu ko bari di ko def nag mu gën a baax non mu gën a bon kay looloo leen dal nag fi mu nekk non mu gën a bon la mu gën a bon na muy gën a bon eh, waaw kay xam nga tax mu gën a bon ah. parce que ñoom bi ñu ñëwee dañuy wax dañuy liggéey taxi la ñu wax parce que taxi la ñu war a liggéeyal mm-hmm. ñoom taxi lañ war a liggéeyal a léegi doona taxi man nanguwuñu non waaw kay bëriwuñu ci ñu nangu non début ba am na ñu dugg ñu bëri ñu duggoon dañoo génnaat gi nga sa sene euh, nit moon am benn jikko koo ci tëgguloo or mu rax përëm bi ñu ñëw dañoo waxoon loo xam ne nii gars yi ñu bëri dañoo daw wuti leen man mosumaa dem mais ñu demoon ñooñu la majeure partie dañoo rocceeku comme que ñoom installé nañ ba pare ci ñi ngi doon gis seen bopp. leen doon génne yow ñëpp yaa leen génne yow message bu ma jot la de yow ñëpp yaa leen génne. d'accord bay naa ci sama waar. <laughs> waaw baax na xam nga li ñoom ñu ñu woo chauffeur yi convaincre leen nag ci seen pexe mais dañoo dem ba ci biir ñu génn ay avantages yu baree baree bari bu gars yi gisatuñ ci seen bopp rocceeku mais comme que installé nañ ba pare te ñoom bëgg nañ di gën di gis seen bopp ñu nef ñu ko transport dem wuti irrégulier dem xool ay particulier mais particulier mun na ci gis boppam parce que li tax mu war koo def dara teguwul ci yoon. attention attention évoluer nañ na. kan moo humilié évolué nañ de. man jot léegi ils vont vers les entreprises maintenant. Mhm. parce que soo yoree. affaire bi entreprise ngay doon. dal na ma tey ci suba rek ils vont vers les entreprises maintenant. gis nga côté boobu a da ngeen a a nelaw. da ngeen a nelaw de ñun mosuñoo nelaw ñun. Ah, xaaral ma yegg non mosuñoo wallaahi mosuñu nelaw amul tax da ngeen nelaw xamul tax. nelaw gouvernement bu bees bi dañu ñëw gars yi ne revoir les contrats yi ñu signé woon ak yenn entreprises yi. man pour man. Hmm. bu ngeen dajaloo woon. Hmm. revoir affaire yi. Hmm. xoolaat koy defaatee ak ñoom ñoom ñu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ci duggoon. waaw au lieu ñu génn gis nga ñun Sénégal. non loolu moo ñu yàq par rapport parce que léegi ñu ngi la c'est-à-dire man man dàquma leen de gëstu leen ci xam nga ma ne la gëstu ci parce que comme yéen war a def transport yéen am droit def transport am na loo xam ne aussi bu ngeen ko négocier ah. dina leen arranger dina arranger ñële te duñu leen teg yenn charge yoo xam ne yéen day métti ci yéen xam nga problème bi ñoom bi ñëwee système la de waaw d'accord comprendre naa de c'est que ñoom bi ñëwee mariage wax wax ñoo acteur c'est vrai que ñoom mënuñu lu tax mënuñu négocier seen oto baaxul <laughs> seen i oto âgé na seen i oto du respecter visite technique seen i oto du respecter lu bari ñoom waaw ñenn ñi ci ñun non non attends quand je dis le transport da koy gis. waaw boo xam nga ñun dañuy yàlla dafa def. Ah. dañuy jël transport. Ah. mais demal ca garage léegi. gars yi jëlutuñ ko parce que confort bi ak sécurité bi amatu fa. non am na noo am na. noo demal ne confort confort bi ak sécurité bi amatu fa. non non en tout cas parc automobile moom war nañ ko changer. war nañ ko mën a renouveler. léegi nag ñoom bu ñu ne dañuy changer état dañuy wax dañuy changer loolu la ñu wax. état loolu la ñu waxoon waaw. mais dañoo ñëw renforcé dañoo ñëw renforcer. doole oto yu baax waaw kay non indi nañ lu baax mais dañ fay fekk lu bon ñu war ko fay jëlee ba mu jeex pour ànd ak yéen moo tax man la maa ngi ci biir dama ne kon yow sa oto waratul daw kan yow sa oto mën na ne parce que ñaan naa yàlla am lu bees waaw voilà man fa bàyyi jàmbur non damaa ñaan yàlla am bees te xam naa dañ moo doon lu bees xam nga war solution bi dañ leen tëjee foofu solution yi état lu mu a def xam lu war a def mooy dindi li ne yu yàq xoolal ba mu set wecc waaw ba pare am fit nag am mm-hmm. fit ñeme mm-hmm. dem ci ñu moom oto yi nag xoolal par force non dama état dafa am doole. mooy dëgg na imposer dooleem. dëgg la parce que ñun seq nañ ko ñoo xam ne nii dañoo bëgg lu yomb xam nga mooy ñan mooy borom oto yi. Sénégal laa gis nit oto yo xoolal Sénégal laa gis nit oto am oto boo xam ne moo ko sa caat moo moo ko sa taaw bi ngay doog a takk soxna oto boobu nga ko jënd nga dem ba sa doom. am nekk xoolal am jabar am ay doom ba bëgg am ay seen oto boobu yaa ngi ko moom muy daw. moom laa li gën a naïf nag benn waay moo ñëw jënd oto boobu yóbbu ko tollee defaraat ko oto boobu bu defee accident nii lay def. Mhm. tata yi ñu fi gis ñuy daw yu bëri yoo xam ne nii seen borom ñi ko jëndoon jaay nañ ko bu yàgg jaay ko ñeneen te xaalis bëri lañ koy jaay. Mhm. c'est-à-dire suñu transport Sénégal ñi xoolal les transporteurs ñoo bëgg lu yomb ñoo bëgg lu bon demal Mali. ay oto yu bees lañu jënd balaa maa dee ñu ne état moo leen accompagner. garage boo maraîcher ñu ngi ne yàggul dara. xolal boo maraîcher yàggul dara ñiy daw ay Mali ñi ngi euh, sëfur Sénégal yi ñi ngi xuloo ak client yi parce que client yi bu ñu bu ñu xoolee yurlu ne ah oto Sénégal mooy dem dañuy roccee ko demaat seen kër yi. jërëjëf ndax oto yi ñoo bon. ñaari ci bi di nga ñëwaat incha allah fa mënut a jàkk beneen yoon booy ñëw la il faut nga jàkkaarloo bi ne semaine bi rek lay doon incha allah il faut nga ñëwaat yow ci kër gi nga bokk Adama merci beaucoup. merci ñu ngi. koy nuyu baax a baax Aziz quoi. <laughs> Moussa Laye Abdou Aziz ñu ngi leen di nuyu Thierno Gueye ñoom Ngañ ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu baax a baax ñoom Yoro depuis Thiès taximan lañ Atumaan sama seex maa ngi koy bëggee bu baax a baax jërëjëf ñaa mm. ay ca ba beneen yoon incha waaw kontaan rek ci invitation bi waaw di bëggee quoi. waaye. <laughs> non dans la semaine il faut nga ñëwaat bi yoon dama lay jàkkaarloo ak benn benn ah. benn transporteur ñuy souhaiter un bon ah. repos à doyen Mamadou Sy Albert di ñaan mu ñëwaat suba ak jàmm ak salaam incha allah merci beaucoup merci la régie merci a toute la rédaction vous retrouve dans un instant merci beaucoup rendez-vous demain incha